initiative la bu ñu jëloon lu bari xewu fi euh, ñu jël suñu mesure après plusieurs rumeurs sax yu ñu dégg de jël suñu responsabilité créer euh, suñu coalition mais coalition bi man dañ ma désigné rek comme tête de liste du coalition bu momal moomal sama composante ndax composant di ci nekkoon bari na euh, ko jité c'est Alunja, imam Alunja, Dia bokk ak Gor ñom ñëpp waxtanon seen biir tànn pour ma nek tête de liste euh, à la mairie de la ville de Rufisque mais comme leen nga xamé euh réew mi di président de la république son excellence Macky Sall recevoir ma vendredi bi passé ñu échanger longuement un peu sur la situation politique euh, man euh, li ma ñor te soxal ma moy intérêt Tëngéej ba mu ne ma département bi am solo trop ci man te nga joggé fa woon li ma doon am lu ma gënal mooy nga des foofu ba pare nga téel ma commune de Rufisque Ouest euh, muy sama kilifa ñu waxtaan si ma expliquer raison yi taxoon nag mu war a dem à la compétition de la ville ndax damay doomu Tëngéej juddoo Tëngéej màgge Tëngéej yaakaar ne ne euh, la ma def département war naa ka mën na ñëw profité loo waa Tëngéej jëriñu si mais kilifa su la ñaanee te moom moo taxoon ma dugg si politique defe naa ne su ma ko mayul ñàkk jox ko cër la ma nangul ko euh, je vais m'employer à fond pour euh, mener une campagne dans le département pour le triomphe de la coalition Benobokayakar. mais aussi faire ce pour que commune de Rufisque Ouest euh, si la ça fait trois mandats que nous mettre fin à ce règne